mbokki jullit yëpp mbokki taalibi yépp mboolem waa réew mi ak ñu nekk bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi yëkkati kàddu yi ci ndigalul sëriñ bi ak teewaayam muy nuyu ñëpp di sant ñëpp di fàttali waa réew mi ak waa bitim réew lii nu dëgmal nanu maase xam ne lu nu mën a am jàmm moo ko gën ci nun ku amul jàmm doo tala jaamu yàlla fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaana ku amul jàmm doo tala lijjanti sa àdduna moo waral sunu borom wax ni yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi sunu boroom yërëm jàmm ñi rekk a tax mu yónni seyduna muhammad sallallahu alayhi wa ne ko wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin adduna ji jàmm fi gën barzaq jàmm fa gën alaxira jàmm fa gën wa salaamun alayhi ma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubaasu xayya jàmm nag li koy maye mooy fas ko ci sab xol di ko wax di ko jëf te tey ànd ak nit ñi bëgg jàmm in wi waqul wafaal walaazim taslami rumil ola mukarramam bi kalimi bokk na ci liy maye jàmm di moytu ak tooñ tey jéggale yàlla wax na ci xadis qudsi yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu waxaat na ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala ku baax ki daana wax ne dee moytu ak tooñ tey moytoo fayyu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ daana wax ne ba ma mosee muñu tooñ laa noppalu ndax sunu borom damay fayul fay ma bokk yi ku leen woo ci jàmm wuyu leen ko wa in janaxoo li salmi fajnax laha wa tawakkal ala allah ku leen woo ci safaan yéen sax leen ci jàmm waaye sax wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama nit ku ne sàmmule ko yettam diineem bu ko yàq alalam bu ko yàq ab deram bu ko yàq kullul muslimi ala al muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu tànn nag yàllaa ko jagoo te yàlla noppi na jaam yi ñoom euh, sàkku ak sabablu rekk mooy seen wàll la yàlla def ba noppi nag jërul ñaawoo sëriñ bi nag ñépp la fi nekkal ku fi dikk dékk ko say loxo mu ñaanal la dénk la digal la ku jàpp ne bokkoo ci ak njabootam umpule nga fa mu ne ak fa mu teg tànkam waajtaayu bis bii nu dëgmal euh, tax na coow li bari ci loolu mi ngi digal ñëpp rawatina waa Touba nanu gën a sàmmonte ak wormay dëkk bi yaraat sunuy kàddu fóotaat sunuy jikko nàmmaat sunuy pas-pas sunu diggante ak sëriñ bi soppante yéenante jàmm taxaababu fillaahi yaa ixwaani bila taxaasudin wala udwaani inna taxaabuba huwa al imaanu ahlihi sururu wal man xabba lil axi alladi yuxibu li nafsihi radiya anhu rabbu kon nag waajtaayu bis bi ak jëmmi bis ba ak bis ya ca topp nanu sax ci suuxat jàmm di ko wax di ko jëf rawatina fii fii Tuubaa nanu gën a wormaal sëriñ bi ci dëkkam bi nanu rus sëriñ bi def ko ni ko yàlla def sax ci li mu bëgg wa salaamun aleykum yasurrukum wa yanfaukum wa rahmatullahi wa eh, fenn ndax eh, eh, seen jataay bii amul benn jataay bu ko mën a wecc. dara lépp ci defar rekk la lépp ci defar rekk la loolu nag moom la ñu suñu sant moom la ñu sëñ bi sant loolu amuñu leneen lu war a nekk kon nag ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin bi yàlla dogalee eh, jataay bii te mu doon loo xam sa dem ci sama xel waaye nag nekk ci lu sëriñ bi gërëm musta jóg ci sama xel kon nag bu yàlla dogalee lii ma fekk fii ci ci sëriñ bi fekk fii eh, bokk yu deme ni ki yéen di sama bokk di bokk di sama bokki taalo bi eh, eh, mel ni ngeen mel maanaam xam li ngeen war a xam lépp ci wàllu xam-xam bu jëfe xam-xamam kon mel na ne yéen jotaay bi ak seen jéego yi ngeen dox ñu ñëw fi ak seen jotaay bi xam ne ko bokk loolu alhamdulilah bi nga xamee ne eh, sëriñ bi moom faggu na lépp moo tax faggu faggu na ko kon lii seen jotaay bi jotaayu dëgg jotaayu defar jotaay bi liggéey sëñ Tuubaa kon lii ci pàgguteefu sëñ bi la maa ngi sant bu baax maa ngi sant suñu bu ñu boole sëñ sant sëñ bi muy suñu lépp tey ëllëg di leen sant di leen gërëm yéen ci seen